indi tey ci région Ziguinchor ndax dañu nekk ci tournée nationale démb ñi ngi woon Kolda ak Sédhiou tey ñu ñëw Ziguinchor lu tolloo téeméeri million ak fukk ak juróom la ñu dugal ci biir région bi pour jàppale acteuru économie sociale et solidaire yi ak mutuelle isolée mais ci enveloppe boobu génnee nañ ci lu tolloo ñeent fukki million ak juróom jagleel ko waa région Ziguinchor te ci biir ñeent fukki million ak juróom yooyu ñaar fukki million yi dafa dem ci mutuelle isole Karambe Nord beneen pàcc bi dafa dem ci li ñuy wax subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire loolu président Macky Sall moo ne ni ñu ñëw ba ci yéen fekk si leen fii jox leen ndimbalam bu jóge ci moom jëm ci yéen acteurs yi te mu doon te mu nekk ndimbal boo xam ne du lu ñuy fay du lu ñuy remboursé moom moo ko jàppalee groupement yi fi nekk. gis nañu ni mutuel yi yëpp dañoo am problème d'autant plus que d'autant plus que ñun arrêté on nañu production de crédit depuis mois de mars donc amuñu woon lu ñu produire donc tey madame le ministre ñëw fi ak euh, kii euh, FIMF jox ñu 20 millions donc ñu koy remercier ci loolu wax ko ni financement bi ñëw na à son heure

c'est pourquoi Zachary Antiam, Thiam Dakar bàyyi fu nekk ñëw si Albadar si jigéen ñi département Bignona daal di leen jox financement bu financement bu xamante ne jigéen ñi mën tañu suturaloo sutural seen njëkkër seen doom njaay mi pour jàppale euh, département bi jàppale région bi jàppale Sénégal yëpp. dinañ fi dellu siwaat xool nan la ñu gën a mën a dugalee suñu loxo ci liggéey bi nga xam jigen jigéen comme fi def ak yeen kat. luñ leen jàppale du doy